nuyu nañu leen ah, bu baax a baax di leen di jaajëfal ci ànd bi ak kóolute bi ci seen ah, chaîne K7 TV mbokk yi ñu ngi leen ziyaar bu baax a baax image yi ngeen di gis ca lycée Djigna boobu Ziguinchor la xewee bi ci guddi euh, le 8 mai am na ay manifestants ñu ne ñu dugg fii ci jamono 22 heures sànni ay xeer toj ay mbir waaye yemuñu ci loolu dañoo taal li nga xamante ne mu di bureau bu comptable matière bureau comptable matière moom la manifestant yi daal di taal ñu dugg ci biir xool di Sidina Boubou Ziguinchor la li xewee ñu woon leen li nga xamante ne moom la ay jeunes def ni ki démb 8 mai maa lundi 8 mai 2023 gis ngeen kon ci bureau bi jàpp leen ni dara jënnu fi dara lu baax amul lenn lu baax li nga xamante ne jënd na fi parce que heure bu ñu ko def vingt deux heures boobu ñu bëri ñu ngi seen biir kër yi gis ndox bu ñu ko fayee sax ba léegi des ni mu taxaw heure bu ñu ko defee daanaka ñëpp ñu ngi seen biir kër yi ndax manifestation yi tàmbali woon na laata loole laata vingt deux heures waaye mu ma wax leen ni am na ay jeunes yoo xamante ne ci ñu bokk ci mbir mi waa police teg nañu leen loxo waaw loolu am nañu ko te lu wér la police am na ñu mu teg loxo démb ci guddi ci ñu bokk ci ñi taal bureau bi mooy bureau euh, comptable matière bu lycée Djignabo Bassène bu Ziguinchor fii nag genre du benn bureau sax même bureau ki nga xamante ne moo di intendant bi moom it jaxase nañu ko yàq nañu ko lépp mu ngi nii comme ni ngeen koy gisee nii am ngeen ni ñaari pièces laa leen woon bii benn ma woonaat leen bii buntu baa ngi ni ñu dugg ci beneen pièce bi fii tamit daara desu fi daara desu fi daara desu fi amul lenn li nga xamante ne bàyyi nañu ko lépp lañu taat taal jaxase lépp nañu leen dëttal ci beneen vidéo waxtaan bu ñu amal ak ki nga xamante ne moo di censeur bu lycée Djignabo monsieur Sagna deuxième pièce baa ngi nii ñu ngi nii nag ci troisième pièce bi beneen buntu baa ngi nii waaw beneen pièce baa ngi nii ma woon leen fii mooy seen magasin fii la ñuy dencee yenn ci ay bagaas ñu xool ba xam gis nañ lii professeur yi di jëfandikoo ci classe yi di ay carton yu ñu defoon ay machine ñu avancé ñu xool beneen bureau bi mooy bureau intendant bi bien Hmm. <laughs> Là, c'est le bureau de l'intendant, c'est ça. Le quoi. Gracias.

Euh, wala yenn ci ay bureau yu bokk si seen si seen euh, administration bu lycée bi parce que xam ngeen ni intendance bu ab lycée dafa am solo trop ci euh, lycée bi comptable matière it am na solo trop waaye magasin bi nga xamante ne foofu lu ñu dencee seen i bagage foofu it lu ama am solo la comme ni ngeen ko gisee lii c'est des télescopes lii ay télescope la lii nag lu cher à cher lu cher à cher benn mën na jar normalement ay quatre cent mille ci lu ñu wax beneen baa ngi nii yeneen ñaar yaa ngi nii donc yi na mën nañ ko récupérer Ça, c'est la lacoste du lycée, des élèves, de parcours élèves. la de da nga ko bëgg a jël quoi. waaw. mais yow est ce que du ma la jox micro ñu wax. non waaye ah man du ma la wax dara fu mu toll nii. non di nga wax tolloo si temps bi non si jël naa ko ay bandi lañu wala ay manifestant lañu on ne sait pas. Voilà, ça c'est des ordinateurs. Bon, après lii dara rëccu fi lépp lañu ñu taal lépp lépp li nga xamante ni nekk na ci bureau yi ñooy euh, ñaari bureau bureau intendant ak bureau euh, bu euh, comptable matière ak seen magasin lépp la ñu taal te li sëñ ñaa bu Ziguinchor proviseur bi nekk nee na moom jamono ji dañoo tiit ci seen sécurité te wax na dëkk wax na dëkk ay nit bu ñu dugg ci lycée def yi ni mel ba dem c'est vrai que euh, wax naa leen sànq ni police am na ñenn ñu ngi ci jàpp loolu sax moo taxoon booy yi ñu ci des daal di daw euh, arrêté seen manifestation bi fu mu toll nii nag mu ngi noonu noo ko gisandoor mbokk yi euh, di leen xamal ne it ca Ziguinchor ba tey poste finance mooy poste bu yaamatooñ moom it wo yi dañ ko taal dem le 8 mai 2023 Dia dia dia dia dia dia dia dia dia voilà ñu ngi leen di daje ci beneen vidéo ci kanam tuuti nañ leen dettal waxtaan wi nga xamante ne amal nañ ko ak censeur bu lycée Djignabo bu Ziguinchor di ngeen ko dégg dina dellu si nu mu gën ci li nga xamante ne moom moo parce que moom jamono jooju mu yoon ci biir lycée bi euh, xam ngeen ni censeur yi pour la plupart dañuy am ay euh, ay ay appartement ci biir euh, lycée muy censeur muy proviseur donc ci kanam tuuti nañ leen euh, jox euh, waxtaan wi nga xamante ne nañ ko ak moom dina dellusi si bu baax a baax ci di xewoon euh, ca guddi 8 mai 2023 te lycée Djignabo Bassène bu Ziguinchor jërë ngeen jëf